Thank you. raja raja bu raja ah ah Allah bay bu ñu owe oh, oowee mu nekk fi mu nekk rek waaye ñëwal fii Allah lu xew ba gisé ma olu la fi lenn rek ka ka waral mo la xamna naa ne wi feeñ na ta nak weer wi ba feeñee ñaar lañ ci wax mo la woor weer wi i sellal ka mhm. aw nag jaaxalu laal ma lii lee ma jaaxal lan moo tax ma kaa bàyyi kii yaakaaru laal ne dañ ko dañ ko juwaat la si hôpital bi kii est-ce que maa ko jur boo ko nag ku ko jur nag bu ma tuumaal gis naa bëgg na ma nag wax ak moom weer wi dakaa woor normal manu ka kër gi duma ko bokk ak moom ta logo moo la wax ja neex ji ma ne moo la wax ja neex ji nak duma si jaaraat duma si jaaraat ma mama duma si jaaraat mel ni kuus garate man balaa maa dee rek mu xëy rek yoral ma fooy di bind rek na du arrêté man sa bind mi ma lay arrêté. mais lan la encore. lanati la kay nga may wax ndax jour ma du nga sa doon wax weeru koor gi. dégg naa ko dégg naa ko dégg naa ko dégg naa ko dégg naa ko daal en tout cas dinaa jéem ah dinaa jéem. dinaa jéem li mu mën dinaa koy defee. wala foofu lay doon. foofu la jéem la foofu lay doon. foofu lay doon bu paree tàngaay mu fay see parce que ba nga ko géej man dama war a xaw benn doomu góor bu a a yéeg ci li ma dugg su ma xamoon ne du waaye lan la man yaa yaa ngi ma ne moom moo ma. dimbali ma nga xam ne ma wax bu baax. ma ko nekk ma da a dinaa wóor mais après lu bëgg a encore maman ah. te loolu rek moom oh. Sénégal fii moom métti. da ah. ngeen métti quoi. Oh, kenn doon la. Eh, eh eh weer wi feeñ na kenn jëliw ko fi weer wi moo ñëwal boppam may wax na ku takk sa verre yi mel ne camion te xam nga lan la ma laa yëgal li ñu nekk fii si kër gi du fi amee jàpp tubay ils sont sur taat ba mu fees del eh eh, eh uy ma ba may ma ne ba may wax may doom dama bëgg a génn si. wax man la rafet a jëf ja ñaaw dégg naa ma wax man la rafet a jëf ja ñaaw lii lii na eh lii du ma ko aw si koor gi dégg naa ma foogu la ma yem nag ak boppa yu àbba nii gis nga saa bu saa buñ ma xasee rek yéen ñaan tax yéen du ngeen xool seen naw ci koñ sama kër gi rek ngeen di dégg riir yow sa tool gi yaa ngi ne fàttali sa bàyyi bu la tere uti liggéey kii moom dama kaa génn la ndax bu dee moom rek doom bu góor moom yaa tax sa bëggatu moom. comme yéen nga doon doy doon doyee. ok baax na benn doon damay tekki léegi. waaye demal sa yoon nga naan tekki yow de bu dee yow de dinaa jaaya a jaay ba gën a gàtt li raw li ma gàttoo. yaay yaay man kóor gi aw ma ci problème xam nga ni kële moo ma jaaxal waaye du ma. demal yaa gën a ñàkk jom ñëpp jàppoo leen ko man nii rek yéen moom bu ma deewee rek a ma rey yées ngeen ñàkk ngeen jom sët sama kër gi